ay kàddu ñaari loxo yu daje ngir rek am nuyoo Macky Sall di wax Barthélémy Dias yaa ngi doxal ngir rek nangul maire de Dakar liggéey bu am solo bi muy def ay bés bu nekk ki rekk ville de Dakar dialogue politique nag ñu bari seen xel dem ci lu ni mel rawatina nag bu ñu xamee ni ñaari nit ñooñee bëggante wuñ woon bu baax moo ne de tey jii ñu waroon a rek wax ci forum mondial de l' économie sociale et solidaire waaye nag xalifa Sall Habib Sy ki yenn responsable Yewwi Askan Wi yu teewoon ci bile xew-xew ci wetu chef de l'État Macky Sall nëbb nañu rek ci seen façon boobule forum ci ay nuyoo ay accolade wala sax yenn wax yu tegginu yu ñu amal ci bile rencontre njiitu réew mi Macky Sall seetlu woon ni rek diggante yi ci langue politique yi xawoon naa ñagas lool ndax it xeex bi jàmmaarloo yi bari woon lool mu waral nag mu taxawal dialogue politique ngir rek jàmm dellu si ci Sénégal. Ce dialogue, mesdames et messieurs, me paraît indispensable parce qu'à l'évidence, l'État ne peut tout faire à lui seul. D'où la nécessité d'instaurer et de maintenir un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d'action au bénéfice des populations cibles. nataal yooye nag di nataal yu taaru di firndeel ci ñu bari ni rek opposition bi nangu na rek loxo bu leen jiite mi tàllal ci rekk dialogue politique bi ñuy xam na sax ni boobule dialogue taxaw na ba pare waaye nag mën naa amit la Philippe Stark waxoon ni rek nataal bi ñuy gis mën naa bañ a nekk dëgg fi mu nekk nii nag nataal yi mi ngi wax rawatina nag wane